وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله فضل سهر رمضان على سائر السهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات وتجارة التي لن تبورا ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw ba nu tàmbalee ci sunu tur borom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk julit yi xam ngeen ni man yanzur bi umqin fi aslin wa usus wa ususul ibadati kulliha yajid anna hunaka haqiqa muhimma wa hiya anna kullu ibada shara'aha allahu laha asrar wa hadhihi al asrar wal maani yurabbi biha allahu azza wa jalla ibada mbokk yi xam ngeen ne képp ku xool mbir yi yàlla santaane seen xóotuwaay wala ngay xool seen cosaan wala ngay xool li tax mbir yi jóg da nga fekk ne am na lu tax yàlla tabaraka wa taala santaane loolu mu ne bépp jaamu yàlla boo xam ne borom bi tabaraka wa taala sant nanu ko yoonal na ko ci ñun sàkku ci ñun ñu taxaw ci jaamu yàlla boobu danañ fekk jaamu yàlla boobu yàlla def ci ay secret moo xam ñun xam nañ moo xam ñun xamuñu waaye yàlla sant ñu benn jaamu yàlla rek lu dul jaamu yàlla boobu am na jubluwaay wa hadihi al asrar wal maani yurabbi biha allahu azza wa jalla ibada mbokk yi secret yooyu nekk ci lu tax yàlla di ñu sant jaamu bi ak maana yu ci nekk lan lay def dafay yar jaamu yàlla bi yàlla sant jaamu gi ndeke bépp jaamu yàlla bu ñu yàlla sant jubluwaay bi mooy jaam boobu jaamu googu def ñu yar day tax ñun ñu xam kan mooy sunu boroom day tax ñu xam ñun ay lan lañ day tax ñu xam kan moo ñu sant jaamu yàlla bi mooy kan ci ñun yenn ci ay borom xam-xam ñu ne yàlla bi mu bindee bakkan daf ko dugal aljanna nangami at lu ko soog moom borom bi mu génne ko mu ne ko bakkan yaay kan mu ne ko maay bakkan mu ne ko maay kan mu ne ko yaay yàlla yàlla subhanahu wa taala dugal ko safara mu nekk fa lu ko soob bu génne ko ne ko bakkan yaay kan mu ne ko maay bakkan mu ne ko man maay kan mu ne ko yaay yàlla yàlla xiifloo nangam nee nañ ci ay fan wala benn fan bi yàlla xiifloo bakkan benn fan suba ba ngoon yàlla mu ne bakkan yaay kan mu ne maay sa jaam mu ne maay kan mu ne yaay sama borom xoolal aljanna munul ci bakkan dara safara munul ci dara waaye ñu xiif loo ko tey mu nangu moom mooy kan yee biñ ko laajee yëpp lan nga dane maay bakkan ñu xiif loo ko benn fan ñu ne ko yaay kan mu ne maay sa jaam kon bala ñuy nekk jaamu yàlla ay jaamu yàlla fan nu nangu yàlla xiifloo gi mu nuy xiifloo mar gi mu nuy marloo bàyyi sunu bànneexi bakkan yii munu ko bàyyiloo ak li mel noonu mbokk yi jaamu yàlla googu tax yàlla sant ñu jaamu yàlla gi di koor nga xam ne namm ci lenn lu dul yar ñu yar sunuy bakkan fi mu nekk nii am na jaami yàlla yoo xam ne koor gi bu mu taxawee ba léegi seen bët yi xoolatul lu bon seen nopp yi déglootul lu bon seen tànk yi doxatul jëm fu bon bal sax am na ci jaamu yàlla yoo xam ne seeni yére changé nañ ko nee nañ dootuñu sol yére yu bon lu dul koor gi jeex gis nga kon loolu moo leen di wan ne koor ci jaami yàlla yi gën a màgg la bokk looloo tax ci ngëneelu koor da ngay fekk yonent bi mu ne kullu amal ibnu aadama lahu illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi doomu aadama lu mu def rek boppam la ko defal ba mu des koor koor man yàlla maa ko moom man yàlla maa koy fayal sama bopp kenn du dox sama diggante sama jaam bu ma koy fayal bu ma koy fay koor kat liir ba tey ci hadis yi ngëneeli koor nga fekk yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne yàlla tabaraka wa taala nee na ëllëg yawmal qiyaama dañuy taxaw di woote naan ayna saimun ana ñi doon woor ci jàmm yàlla yëpp ana ñi doon woor ñi doon woor jóg taxaw am na benn bunt ci bunti aljanna yi bu tudd Rayyaan yonent bi nee na ñu ubbi bunt boobu ñu ne ñi doon woor jàll leen bu ñu duggee ba ñu jeex ñu tëj bunt bi ñu ne yéen dong yéen a fi jaar keneen du fi jaar ana ñi doon woor bokk yi loolu xéewal gënu koo rëy yowmal qiyaam yàlla dina terele ngay jaar buntu boo xam ne yow rek yaa fay jaar lan moo tax nga am loolu mooy da ngaa nangul yàlla tabaraka wa taala jaamu gi mu la sant ixwatal iman jaamu yàlla yooyu yàlla di ñu sant wa yad'uuhum ila masaliki alxayr wa taa te ñuy yóbbu ñu mën a jaar ci buntu yiw yi buntu mbaax yi gis ngeen réew mi bi ñu wooree ba léegi déggatu leen soirée wala mu néew xataa sax dégg nga am na seenu rajo yoo xam ne animateurs yi ak animatrices yi dañu ne jël nañ congé waaw jël naa congé samay animateurs yi maa ngi leen di maa ngi leen di tàggu sama auditeurs yi maa ngi leen di tàggu ba koor gi jeex loolu mooy lan kon ñëpp xam nañ ne dofuñu xam nañu dañoo war a jaamu yàlla waaye seytaane moo leen jàpp benn waaye daf ma wax démb mu ne ma mu ngi toog ci jumaa ji mu ne ma avant koor sunu mosquée sunu jàkka première sàppe laa doon nekk waaye ñeenti fan yi ci biti laay jullee ci biti ci biti ma ne ko lu tax mu ne ju jàkk ji day fees ba ma dem ci biti léegi koor jeex na jàkk jooju doon fees ci weeru koor commencé waat benn sàppe est ce que loolu jaamu yàlla la kon ñooñu wooruñu ñooñu xamuñu lu taxoon koor jóg koor dafa jógoon pour fan yee ñu tardé woon fan yee ñu sàggane woon mu indiwaat leen waaye nekkul bu leen indiwaat leen ba ñu tàmm ko ñu delluwaat kon kay boo delluwaatee mooy yow ñu doo ko dara jaamu yàlla bu baax ki nga bàyyi woon yeewu fajar julli jàkka jàng alquran def ay askar saraxe téye sa cër sa yaram yëpp nga téye ko téye sa lépp nekk jullit normal comme koor nga nekk ko fanweeri fan wala ñaar fukki fan ak juróom-ñeent loolu la yàlla bëgg bu koor gi jeexee nga continuer fi mu nekk ni ci stage lañ nekk ci ay fan dañu nekk ci formation ñi daawul naafila guddi nga xam ne xamuñu luy naafila ñu jéem leen ko tàmmuloo ci koor ñi nga xam ne seen nopp yi daawul dañ ko bàyyi woon rek amul kubéer lu leen neex ñu dugal ci ñu ne leen déedéet pour bu koor jeexee ñu tàmm loolu mu continuer am na ñoo xam ne seen bët yi ñu ne leen déedéet ñoo xam ne seen gémmiñ yi ñoo xam ne seen awra yi ñoo xam ne seen biir yi ñoo xam ne seen tànk yi ñoo xam ne seen loxo yi boo tàmmee lii lépp ci weeru yàlla bët bi xoolul lu bon nopp yi cër yi yépp sàmm nga leen ah nekk nga fajar jàkka lépp tardé woo tisbaar tàkkusaan timis gee lépp ci mbooloo ngay julli jàng alquran fajar jàng alquran ngoon tudd yàlla guddi tudd yàlla bëccëg saraxe def lu baax ku ñëw sax di la bëgg a yóbbu ci lu bon gis nga yonent lu mu wax wa in imru'un saatamahu su kenn ñëwee di la saaga wala lan la yonent bi wax nga tontu ko sallallahu alayhi wa sallam inni imru'un saa'im man dama woor wala dama woor léegi kon kooku nekkoon ci koor benn waay ñëw di la wax loolu bon wala di la saaga wala bëgg a xeex ak yow yonent bi nee na waa ji dafa bëgg a xeex ak yow wala mu saaga la nga ne ko dama woor est ce que bu koor jeexee kon fu la waa ji saaga wala mu bëgg a xeex ak yow da ngay xeex ak moom mbokk yi koor nekkul rek ñuy xiif mar mu jeex waaye dafa am fu mu ñu fekkoon ci yu bon mu indiwaat ñu ba ñu jege yàlla ba ñu jege ko bi qurbillahi tabaraka wa taala ba ñun ñëpp ñu set sangu koo ci gis dafa leer koo gis mu ngi wax ndànk ku la ci gis mu ngi lay bëgg wan da lay jël daf la ci dënnam nga nga nekk mbokkum jullitam loolu la koor ñëw di ñu formé di ñu defar di ñu jubanti pour bu koor jeexee ñu mën a sax ci loolu mën cee lan waaye nekkul koor dafa ñëw naa góorgóorlu rek naa ko jéngu rek non garaawul amul problème am tant que jour ba quoi dama koy dóor mu daal rek garaawul quoi mu ñëwaat non koor bi moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne man lam yada qawla zuur wal amalu bi fa laysa lillahi fi haaja an yada taamuhu wa sharaabuhu aw kama qaala alxabibu sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nee na koor nekkul nga nekkul rek da ngaa ne da nga war a bàyyi caaxaan ku koor mën ta tereloo bàyyi sa caaxaan mën laa tereloo dara yàlla soxlawul ci xiif gi nga xiif yàlla soxlawul mar gi nga mar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne rubu saaimin fa laysa lahu min siyaamihi illa al-juu' wal atash am na ku woor suba ba ngoon lekkul naanu waaye yonent bi nee na jëlu ci dara lu dul xiif ak mar bàyyi xiif bàyyi lekk bàyyi naan taxu koor jóg koor dafa jóg pour yar sunuy ruu pour mu ñu yóbbu ila masalikil xayr ci buntu yiw yi lépp lu baax koor dafa ñëw pour yóbbu la ci lool wattaa ak lépp luy topp yàlla koor daa ñëw yóbbu la ci nga nekk jullit buy topp yàlla koor ñëwul pour rek nga julli fajar tey julli tisbaar tey julli tàkkusaan tey julli timis tey suba nga nekk ci loolu la neex déedéet koor dafa ñëw di la entraîner pour lii nga nekk su koor gi jeexee nga sax ci ba borom bi tabaraka wa taala fekk la ci ixwatal iman koor dafa ñëw pour entraîner jaam yi ala ma yuhibbuhu lahum wa yaj'alu sa'adatahum tabda'u bi ma- bi mabadi iltizami hadhihi al mabadi koor dafa ñëw pour yóbbuñu pour ñu texe dugg aljanna firdaws pour ñu am kontaante allahu tabaraka wa taala loolu moo tax koor jóg waaye gàtt na xel koo xam ne dafa jàpp ne koor dafa ñëw pour sonal ma koor daa ñëw pour mbugal ma ba tax muy làqatu ji di tappale yenn saa yi sax nga gis koo xam ne danaan ma oo man de jébbalu naa moo tax duma woor rek ndax dem naa jébbalu ci su ngeen xoolee fan yi ci dëkk bi bi koor gi commencé léegi am nay nit yu jóg di togg ay ndog taxaw ci tali bi sax ndeysaan di joxe waaye ñooñu seen ndog yooyu ñuy joxe xam ngeen kañ lay am tiyaaba kañ lay am mbaax kañ la leen yàlla di fay bu ñu wooree soo wooree joxe ndogu day wallahi li nga def kenn ëpp la yool ci bis bi yow kenn mu ëpp la kenn rawu la waaye wooroo joxe ndogu jële woo ci lu dul coono ak perte sa alal parce que doo ci am tiyaaba ak ku la ko sant nag képp ku la mën a sant bul woor joxe ndogu kooku alak na la ndax borom santaane bi moo santaane aji santaane ji moo santaane muy borom bi moo ne yaa ayyuha alladina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun yéen aji gëm ñi fu ngeen ne ñu ne ñu ngi nii taxaw yàlla ne farataal naa ci yéen koor waaw ma ne ndax ku toll ne yàlla buur bu màgg ne yàlla war na santaane ay jaam di ko teggi buur bu màgg ne allahu subhanahu wa taala war na wax jaamam ñi defal leen ma lii ay jaam toog ci suuf ne déedéet yàlla lii la wax waaye bu leen ko def def leen lii ci ngeen di tegee ci ngeen di rawee kan moo gën a yey ñu déggal ko kan moo gën a yey ñu topp ay waxam kan moo gën a yey ñu jafe ay kàddoom kan moo gën a yey ñu nekk ay jaamam borom bi tabaraka wa taala kon nanu woo nenu nanu woor bu nu wooree rek mu ne ñu lépp lu ngeen ci def ci xeetu mbaax moo xam da ngeen a saraxe xoolal walaw bi sidqi tamra walaw bi sidqi tamra mu ne boo yoroon benn tàndarma dog jot ñaari nit ngeen yonent bi nee na xaral tàndarma bi ci digg bi jox sa benn mbokku jullit ngàdd bi nga yor ngàdd bi ndax tiyaaba yi nga ci am waaye wooroo nekk ci tali yi di langi langi wooroo nekk nangam nangam ngoon jot nga naan da nga boo jëloon addina bi yëpp nga jox leen ñu lekk da ngaa perte sa alal ndax da ngaa xëtt santaane yàlla tabaraka wa taala yàlla du la nangul loolu nga def kon koor dafa ñëw pour yar nu koor dafa ñëw pour tàmm loonu lu baax koor dafa ñëw pour ñu texe xam ngeen kan la ñuy texe bu ñu nangoo li yàlla tabaraka wa taala di wax xam ngeen kañ la ñuy texee bi wa shaqawatuhum tabda inda tamarrudihim ala hadihi al ibadat wallahi buñ fi bàyyee yàlla lim nu sant ñu fetteerlu di lànk di dëgër bopp di déggal jaam ñi bàyyi borom jaam ñi bésa ngi ñëw allah jalaal allah jalla jalaaluhu dina ñëw jël ñi ñu yóbbu ñu jal ñu ñëw tas jal yi ñu jaloon jaale ñi bu nu déggalee jaam ñi bàyyil borom bi tabaraka wa taala bés moo ngi ñëw yàlla dina ñu jële fii yóbbu ñu jal ñu ñu dellu si waat jal yi ñu jaloon ñu tas ko tasaare ko jaale dugg ju fen te ku dugg bàmmeel ba borom bi fekk la fa ne la loolu tere woon woor nga ni ko dañ maa joxe la woon ndogu di nga am problème mu ne ku la ko sant man joxe la wu ma ndogu de man dama ne woon woor leen kutiba aleykum siyaam laa waxoon kon nag santaane yi lu muy rëy rëy ndoomu mbokk jullit yi santaane yàlla moo ci gën a màgg yàlla nañu yàlla woon dëkk mu wërsëgal ñu topp yàlla nañu yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori alhamdulillah الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله وعبادة الله تبدأ بقضية أساسية وهي النية فأول حديث أيها الأحباب في صحيح البخاري إنما الأعمال بالنيات wa innama li kulli imri'in ma nawa mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala jaamu yàlla googu yàlla santunu dafay commencé ci sujet yoo xam ne yu fondamental la ci tomb yoo xam ne tomb yu am importance la tomb boobu lan la mooy yéene yàlla moo ma sant nema naa ko jaamu su ma jógee di def jaamu yàlla boobu pour yàlla nangul ma ko li ma war a njëkk a def man jaamu yàlla bi mooy ma sellal sama yéene ci jaamu yàlla boobu may def soo jógee nga woor ci yow da ngaa dégg ñu ne 4 heures jot na rek ñu nodd nodd bu njëkk nga jóg daal di xëdd ba suur daal di jàpp génn dem jàkka ji julli nga dégg salaatu jot na nga daal di fay jaar continuer di xiif di xiif ba timis jot ñu nodd ñu ne dog jot na nga daal di jël sa tàndarma wooroo de da ngaa xiifal sa bopp dafa am jaamu yàlla bi gën a màgg suñ demee ci téere bi gën a wér ci téere hadis yi muy téere Buxaari hadis bi fa njëkk ci téere bi yéene lay lijjanti innamal a'mal binniyat moo nekk premier hadis ci hadisu Buxaari lu tax al imaamu Buxaari jël hadis bi def ko ci téeram boobu lu tax ndax xam ne jaamu yàlla yépp yéene moo ci cosaan ku la raw rek mu ngi la rawee ci yéene nit dina tëdd biir këram yow nga nekk ci tool bi moom mi tëdd mu ëpp la tiyaaba yonente alayhi salaatu wasalaam dafa ànd ak sahaaba yi ñuy jihaad mu nekk ci fas bi nekk ci kanam mu jékki-jékki geesu sahaaba yi ne leen ay nit ñu ngi madinatul munawwar àndu noog man waruñu fas yëkkatiwuñu jaasi dugguñu ci xur yéeguñu montagne waaye ñoom ak yéen ñoo tolloo tiyaaba tey yéen ñu nekk ci naaj bi di xeex waaw sahaaba yi daal di tiit daal di waaru ne ko loolu nu mu mun nekke ñun ñu bàyyi sunuy lan bàyyi sunuy soxna bàyyi sunuy doom bàyyi sunuy tool tëj suñuy bitig war sunuy fas gàtt sunuy jaasi dugg ci naaj bi yéeg ci xur yi yéeg ci montagne yi dugg ci xur yi di dóorante ay jaasi ñu tolloo ñu tëdd seen gawlal mu ne waaw ñu ne ko loolu nu mu demee mu ne yéene yi la leen yàlla fay yéene yi ñoom ñëwuñu de waaye seen yéene moo yegg si kon gis ngeen yéene nit ñi nañ sellal seen yéene ci koor wallahi boo jógee nga am yéene soppeeku ci koor gi di nga soppeeku yéeneel woor nga yéene yal na la yàlla soppi ci koor gi ba nga lang ci jaamu yàlla ba dee da ngay dem waaye boo yéenee naa ko dóor mu daanu non garaawul 30 jours la naa ko jéngu bu jeexee nga dellu parce que li nga yéene woon jeex na 30 jours nga yéene woon 30 jours jeex na wala nga yéene yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma ma góorgóorlu ci weer wi rek nga góorgóorlu ci weer wi rek weer bu jeexee nga dellu weer wi buy jeex premier guddi googu mu jeex wallahi ci sa kawlal ngay jullee fajar ilimaan dootu la gis allahu akbar waaye bu fekkee da nga ñaan yàlla mu langal la li aaya bi wax ne waabud rabbaka hatta yatiyaka al yaqin na nga jaamu yàlla ba dee fekk la ci su boobaa da ngay dem ndax da ngay xam ne yàlla subhanahu wa taala nga doon jaamu ixwatal iman koor dafa ñëw pour ñu sellal suñu yéene suñu digganteeg suñu borom waaye koor ñëw pour ñu dëggu summa sidqu tawajjuh wa umqul iman wa husnu suluk wa taslimi lillahi azza wa jal zahiran wa batinan koor dafa ñëw pour defar ñu ñu dëggu suñu digganteeg suñu borom ñu dëggu bokk na tey ci sénégalais yi li leen alak mooy ñàkk dëggu ñàkk dëggu da ngay gis koo xam ne lu mu wax du dëgg koo xam ne dundam bi yëpp dafa nar a ñàkk a wax dëgg ba dee dëgguwul ci këram dëgguwul ci soxnaam dëgguwul ci doomam dëgguwul fa muy liggéeyee dëgguwul ci dëkkandoo yi dëgguwul fenn fuñ jëm jullit day dëggu yonent bi alayhi salaatu wasalaam def ci soññ iyaakum wa sidq fa inna sidq yahdi ila albir wa inna albir yahdi ila aljanna wa ma yazaalu rajul yasduq hatta yuktab inda allahi siddiq yonent bi nee na maa ngi leen di dégg ngeen dëgg ndax dëggu da leen di yóbbu aljanna jaam bi di dañ di dëggu ba ñu bind ko ci yàlla ku dëggoo ngi nii wa ma yazaalu rajul yasduq wa yataharra sidq hatta yuktab inda allahi siddiq ku ñu bind ci yàlla kii ku dëggu la luy sa fay ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين اجتبوا والصديقين kon ëllëg ku dëgg ko fokk mu ànd ak yonent yi dugg biir aljanna parce que dafa dëgg Abubakar Sadiq dafa dëgg woon ba moo tax turam bi ko nit ñi gën a xamee mooy as-Siddiq ñu bëri boo leen ne Abubakar nu mu tudd ñu ne la Siddiq Abubakar kenn xamul turam ñu bëri ci ñun xamuñu turu Abubakar asli bi lan la soo ne papaay Aysa mooy kan rek ñu ne la Abubakarin Siddiq loolu dàkkantalam la dafa dëgg woon ba ñu tuddee ko Abubakarin Siddiq waaye turam du Abubakar Abdullahi la tudd Ibnu Quhafa noonu la Abdul Abubakar tudd waaye xoolal nit ñi fàtte nañ turam ndax dëggu gi mu dëggu woon kon koor dafa ñëw pour nu dëggu nu bàyyi fen parce que yaa ngi nii war doo fen boo buggee fen saa yaay de astafurlah dama lay nax de dama lay nax de ndax fàtte naa damaa wor ah koor gi bu la jeexee nag nga tegale fen yi takar naase di dem yàlla na yàlla yërëm waaye koor dafa ñëw pour lan pour ñu am umqu umqul iman ndax mbokk yi sunu ngëm yi xóot ngëm warul nekk rek ci làmmiñ tegu ngëm warul tegu rek ci kaw làmmiñ ngëm dafa war a dugg ci biir xol yonent bi alayhi salaatu wasalaam xam nga lu mu wax sahaaba yi wallahi da ngeen di julli Aboubacar di julli ngeen tolloo ak moom da ngeen di woor muy woor ngeen di saraxe muy saraxe ngeen di jàng alquran muy jàng waaye Aboubacar lenn dong la leen rawe mooy sëy un waqara fi qalbi benn mbir bu dugg ci xolam mooy lan mooy iman loolu dong la leen Aboubacar rawe iman la leen rawe kon ndeke iman foog mu dugg ci sunu biir xol yi te koor daa ñëw pour loolu manqué woon pour ngëm gi mën a dugg mën a xóot ngëm gi dem ba nekk raasix bu sax dak ni garab di sampooy ci kaw suuf nga gis garab gi samp nga naan kii de bu ma ko bëmaxee mu daanu parce que dafa taxaw rek demal nga bëmax garab nga xool ndax garab gi dina daanu lu tax soo bëmaxee garab du daanu c'est parce que reen yi dafa tasaaroo ci biir suuf si daal di jàpp mu dëgër noonu la ñu bëgg nga mu jullit mel noonu ci xolam nekk raasix ne këccitee looloo tax nga gis sahabatul kiram bi leen yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaree ba ñu am ngëm googu yéeféer yi dañuy ñëw indi ay yat indi ay jaasi taal safara ñii lakk nañ leen ñii rey nañ leen ñii duma nañ leen amul lu ñu leen deful waaye kan ci ñoom moo dellu ginnaaw xoolal bilaal keroog bañ koy dóor jël ci naaj bu tàng bi weer ko jël da- doj ji di teg ci dënn bi naan ko wet weddil yàlla mu naan allahu ahad ahadun ahad xoolal sumaya jigéen weddil yàlla nga gëm hubal mu ne laa ilaha illa allah muhammad rasulullah ñu rey ko xoolal yaasir jëkkëru sumayya ñoom ñëpp noonu lañ def parce que lan ngëm gi moo dugg ci biir ngëm gi xoolal abdullahi ibnu xuzaafa romain ya ko jàpp bëgg ko génnloo ci lislaam mu bañ ñu ne ko dañ lay rey ci histoire bu gudd bu ñu tënk dañ lay rey ñu daal di baxal ñaari cin ba mu bax ñu jël benn jullit dugal ci cin bi bi ñu jëlee benn jullit bi dugal ci cin bu baax bi yax yi daal di jóg ci kaw yàpp bi wàcc ci suuf mu siddeeku ndax tàngaayu ndox mi ñu ne ko beneen cin bi yow lañ la ciy dugal de mu jooy bi mu jooyee yëfiri ne ko yaa ngi ni yow da ngaa ragal dee looy jooy yaa ngi ni ñu ne la weddil nga bañ léegi nag ñu ñu rey kii ngay jooy te xam nga ne yaay dugg ci beneen cin bi mu ne jooyu ma loolu de ñu ne looy jooy mu ne kii def maa jiitu aljanna kii def maa jiitu aljanna loolu laay jooy def maa raw xoolal ñooñu xoolal ñooñu lu tax parce que ngëm gi moo dugg ci xol yi ñooñu xam nañ lu tax koor jóg ñooñu xam nañ lu tax julli jóg ñooñu xam nañ lu tax jàng alquran jóg ñooñu xam nañ lu tax sarax jóg ñooñu xam nañ lu tax aj aj jóg ñun nag mbir yi dañ koy def nii rek à la forme jumaa ñaata rakk la ñu ne ñaar rakk nga ñëw dóor sa ñaar rakk anama sànni si yaada ji dem taal cigarette bi xëcc fur ah yow koy xam nga ne xamoo lu taxoon nga dem jumaa xamoo ko koor gi jeex na booy taalal ma waay soo ba léegi toxuma da ngay gis koo xam ne mal un boo xam ne cigarette lay dogee cigarette buñ ne allahu akbar allahu akbar jaay ma maal boroom rek au lieu mu njëkkee sax tàndara ma wala mu naan ndox cigarette lay ndogoo kii xam na lu tax koor jóg nañ seetaat suñu bopp bu nu nax suñu bopp olof yi nee nañ ku noppi nax sa bopp sa aajo faj allahumma arina alhaqa haqan warzuqna ala ittibaai wa arina albatila batilan warzuqna ala ijtinabi اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة نصوحة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله